général bëggoon naa xam ci lan ngeen d' accord depuis bi dialogue politique bi. ubbi ak léegi non vraiment nag euh, ay affaires yu bare la mais euh, pour man li ëpp solo Pape Ngagne mooy euh, ponk yeeg régal yi. loolu lijjanti lijjantee guñu ko loolu laa lay wax parce que fichier bi audité guñ ko procès électoral bi audité ñu ko naka la ñuy wotee est-ce que dañuy am auto autorité. mais boo xam ne mooy est-ce que fii ba déwén ba déwén mën nañu dem ci élection. mooy mooy euh, volonté politique la cest à bu fekkente ne président de la république bëgg na yëf yi sotti ci lu gaaw mën naa sotti ci lu gaaw ak ngeen ko aussi parce que ñun pare na non ñun pare na non pare na non mais ñun. xam nga dama lay wax ne la. non mais pare ngeen te document bi jógee DGE ngeen ni boobu duñ ko duñ ko loolu loolu aussi mooy. pare léegi bu nu bañee. buñ ko bañee ngeen ne ay nga ne ay kon yéen a ngi jafeel bu nu nangoo ñu ne ah kon dañoo nooy <laughs> ba kañ non non du loolu quand c'est des questions sérieuses mhm. euh, yu ñuy seet mhm. euh, il faut que pouvoir bi seet ni ñu ci war a mën a taxawee pour ñu jógee ci difficulté yi en tout li ma li ma jot a dégg waaw mooy ñoom euh, blocage bi war naa mën a ko mm-hmm. mais il faut ñu jëfe ko mm-hmm. ñoom ñoo ci ñoo ko war a jëfe d'accord léegi lan nga doon wax ci message ci boo nga ni président ngay wax pour mu am ci taxawaay da ni président am na taxawaay bu mu ci war a am ban ah, ban taxawaay non non taxawaay bu parce que quand affaire bi yàgg na depuis mois de de le vingt le vingt huit mais la ñu ubbi dialogue bi mm-hmm. Hmm? juin juillet août septembre octobre novembre décembre ça fait huit mois sept mois te commencé guñu audit bi donc euh, affaire bi c'est c'est très compliqué hein te aussi opposition bi aussi mënul euh, toog rek ñu ñu ñu euh, tendeefal comme ni ko wolof yi di waxee di tendeefal di tendeefal di tendeefal Euh, kooku kooku c'est te yéexaay bi yëpp jàppaloo ni peut-être ñaari wàll yi ko yi ko seq dañoo parewul kenn ku ci ne ci ay élection jàppaloo ni noonu la demee non non non mais attends vraiment Pape xam nga fii dafa am opposition mhm. ak pouvoir pouvoir bi quand même moo yor de décision ok am de mais loolu kon xam ngeen alors mënoo leen a mënoo leen a renvoyer dos à dos maanaam non quand c'est pouvoir bi moo war a def l'essentiel des efforts pour que problème yi réglé wu. Mhm. voilà donc donc, donc ministère de l'intérieur mi ngi def ay effort moom. comme quoi par exemple. comme ministre de l'intérieur. par exemple non ministère de l'intérieur nekkatul euh, interlocuteur ci affaire bi. Mhm. acteurs yi ñoo daje ak commission cellulaire général ñaa nekk fa di ko di ko doxal. ak ak ñu koy jàppale ñoom Mazid. Mhm. voilà accord mais ministère de l' intérieur amul ci benn. benn non nekkatul vraiment du du vis-à-vis bi daal. Mhm. mais jafelu ci dara aussi. non comme du vis-à-vis bi. ok d' bon ña fa peut être looloo tax xëy na directeur général des élections dugal. loolu dugal euh, tout à fait parce que ci ci tutelam la nekk moom ci tutelu ministre de l' de l' intérieur la nekk direction générale des élections alors donc. Euh, leneen loo xam bëgg naa ñu aborder ko honorable député mu aju ci euh, mandat wu président de la république dama dégg euh, maître Robert Bourgi am lu mu ci wax moom nag ñaare xam nga boo ko déggee muy ci Sénégal muy feneen euh, daanaka waxam dafa am lu muy lu muy junj dégg nga interview bi nga xam ne mujj na ko def ban jàngat nga ci am wala gisuloo ko loolu. liir naa ko dama wax ne Robert Bourgi. dama ko bi may ñëw xamoon naa ne di nga ko di nga ma ko laaj. da ci bind kon. ma bind ci ma ne. ce monsieur est un pyromane un pyromane de la pire espèce. il a un mépris renversant pour le peuple sénégalais. Robert Bourgi n'est l'ami de personne parce que dama dégg ñu naan c'est l'ami du président il n'est l'ami de personne il n'est l'ami de sa poche. et de ses maîtres de la France Afrique kookoy Robert Bourgi euh, bokk na ci ñi fas yéene taal réew mi détoy parce que nee na Macky Sall mësuta wax ci mandat te Macky Sall wax na waxati waxati waxati mhm. deux mandats consécutifs kenn mënta def lu ko ëpp ba may def sama discours ca palais présidence de la République dama ko ne du ma ko tudd mandat bi parce que réglé nga ko foofu la taxaw ba léegi nit ñi bëgg dugal ci bopp sénégalais yi pendant cinq ans que trois ma troisième mën naa ne ñu di ko waxtaan grand place yeeg naanukaayu attaay yeeg salon yi ànduma ci Robert Bourgi loolu lay liggéey bokk na ci ñi nar a taal Sénégal il faut que jeunesse bi xam ko il faut que acteur yépp xam ko loolu lay tontu Robert Bourgi Euh, kon jàpp nga ni wax waxu troisième mandat ànd nga ak camp présidentiel bi nga xam ni ñoom parewuñ pour di ci digg di aborder sax question boobu. c'est pas le camp présidentiel c'est Macky Sall. c'est Macky Sall. bon li ma bëgg a wax mooy dañu remarqué ci camp am ñu képp koo xam ni aborder nga camp bi ah, aborder nga. ña daane woon Abdoulaye Wade daal. defal troisième mandat ngembal Karim Wade fii la xar yi jaar ginaar yi jaar fii ba Abdoulaye Wade nërmeelu ña nga wër Macky Sall waaw ba ñu wotee 2012 kanoon Abdoulaye Wade gagné na cinquante xaw ma ñaata pour cent premier tour ma nga ca Macky Sall ak ña ca des. sa gàmmu bi nga bëgg a. ak ña ma tudd. sa gàmmu bi nga bëgg a xanaa. donc vraiment ma lay laaj aussi honorable dama ne xanaa sa gàmmu doomu adama dafa am solo wala xadd karam naa banni aadama yàlla ko wax su dee gëm nañu yàlla àjjana ci doomu aadama mi léegi nga koy amee ci nga koy ñàkkee wala bëgg a jël mbiri doomu aadama yi def ko affaire caaxaan affaire fo affaire non c'est pas ça est-ce que loolu bokkul sax ci li tax nu tardé. mais ba ci wax sa xalaat aussi ba ci wax sa xalaat dafa am fu mu war a yem. xam nga pour yow wax am fu tubaab yi par exemple moom moo xalaatam wax yéeneem pour yow dafa am fu mu war a yem. xam nga tubaab yi waaw. Euh, ñoom ñu fonk doomu aadama la ñu. Mm-hmm. Euh, ñun nag euh, bari nañu ci suñu biir këpp këppal. waaye fala yem mhm. loolu lañu war a seet mhm. donc ba honorable man bu mu la déggee dafa mel ni yow mandat bi amoo ci dut maanaam sa xel teeyu ci say njort ñaawu ci non pourquoi pourquoi pourquoi mu muti ci ñaaw nañ wax leneen ok cest à man sa discours bi daf ma jox discours ku bokk APR nañ wax leneen ci mandat bi ni ñu ci tontoo nii ñoom noonu lañ ciy tontoo. ah noonu lañ ciy tontoo. ñoom noonu ma ci ñoom. déedéet non de dama lay non man noonu lañ ciy tontoo. Ah, man discours bi loolu ma jox. kon nga boole ma ci ñoom. cest à mel ni dañ ci bëggul wax da jàpp ni rek li ci président wax. mais pourquoi nga di ci wax. nee na la mënut a ne. ñaari mandat successif kenn mënut def lu ko ëpp. wax ko waxati ko waxati ko waxati ko nga ñëw ne ma wax ci duma ci wax surtout tout. Mhm. loo junj léegi ci sa biir wax nanguwoo ci xuus bu baax sax da nga ni rek ñi nga xam ne ñoo doon xelal Abdoulaye Wade ca troisième mandat boobu daanaka ñoom ñoo ko wër moom ma président Sall tey da jàpp ni daf ci war a def attention kon ci loolu. moo xam li muy def moo ko xam. Mhm. d'accord euh, honorable euh, vendredi incha allah beneen marche ñi ngi ko fas yéene mu jëm ba tey ci Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi. yaa ngi waajal marche boobu ak lan nga gis aussi laaj naa la ko tout à l'heure euh, combat bi dafa war a gën a continuer. non man organisé wu ma marche bi. Mhm. ñi ko organiser dañuy invité ma ma dem en tant que citoyen. Mhm. léegi na muy demee lu muy kii yooyu ñoom ñoo ci war a tontu da nga leen koy laaj. Mhm. maintenant front de résistance nationale bi am na coordonnateur Mokhtar Souran mu nga woon ca euh, ñi doon euh, jël parole ci marche bi passé mën nga ko laaj aussi mu wax la ci. d' accord euh, ñu ngi jëm nag euh, ci euh, wax nga ko wax nga ko tout à l'heure ci assemblée nationale daanaka marathon budgétaire bi jeex na ñu jëm nag ci coow loo xam ne xëy na euh, mën naa mu mu continuer mën naa mu jeex mooy li nga xam ni suleeku na fa ci wàllu mbay mi ak coow li nga xam ne yëkkati nañ ko fa euh, yaakaar nga ni loolu itam lu war a mën am ay poursuite la maanaam yoon war na ci am wàll. ni ko xam nga Pape Ngagne man daal man daal man daal hmm, xam nga philosophe yi dañuy wax affaire épistémologie. Mm-hmm. Euh, philosophie des sciences maanaam xam-xam jaar-jaar yi muy jaar bay dugg ci bopp nit euh, ak yu mel noonu euh, Sénégal ñenn ñi bu ma déggee ñu di ci wax dama naan est-ce que ci Sénégal la ñuy wax xam nga ni que ma waaye est-ce que gars yi duñ ci ci enquête ak mais ñi koy def nee naa la nit ñi jàpp nañu ne justice du seen justice waa ëttu attekaay yi du pour ñoom dëgg la kon Guy Marius Sagna du nekk ci kaso ba ak docteur Babacar Diop alors ñi nga xam ne jël nañu subvention bi seddale ko seeni gaay nga ne leen non yéen euh, nañuy enquête est-ce que am na sens non dinañu wax li ñu war a wax. waaw waaw loolu la def def li ñu war a def. mais du naa la léegi déposer naa question oral sur <laughs> ci affaire drogue drogue demande de commission fu mu toll fu mu toll. ah <laughs> laaj naa la ko laaj nga mbott genn ba. Mhm. mais lii aussi est-ce que mérité wul commission d'enquête. waay waay waay waaye xam nga ne li mérité commission d'enquête kay du jeex du xaaj loolu kay bokk na ci ah Moussa Cissé loo ko wax te xam na li mu wax. mais du ci du ci am du am du am parce que foofu la ñu toll jàpp nañu ne euh, looloo baax alors bu ko defee bu muy wax ci yooyu mel ni dañuy wax ci réew moo xam ne dafa am yoon ñu respecté yoon mi ngi dox comme France ñu accuser nit wala almaañ wala Amérique walla Japon wala alors que du loolu fi ñu ne beaucoup fi mu ne leneen la. d'accord amul benn role bu ci opposition bi am aussi taxawaay mooy xeex pour lii ñu déjjati ko déjjati xam nga boo demee ay it dañuy wax déchouqué. Mhm. dañ koy dañuy déjjati. maanaam reen yi jógaale. Mhm. ñu teg ko fee def leneen. li fee defuñu ko maa la ko wax. feeg téeméeri ak encore ca kanam fii la ñuy toog di ñaxtu dañuy sax gën a dellu gën a ñu bari defe nañ ne. Eh, non fii daal moom mënatuñu ko weesu si man mënoo gën a delluwaate ginnaawati encore su su fekkee ne mm, taxawuñu ni ñu war a taxawee. Mhm. d' accord jërëjëf honorable député bu fekkee am nga message boo xam ne nag moom nga bëgg a euh, askan wi ma bàyyi la nga def boobu. message waaw maa ngi lay maa ngi gërëm rek di la di la sant euh, Pape Ngagne di wax ne situation réew mi daal war nañ ko jël au sérieux mhm. Euh, bu ma xoolee li xew barki démb Niger juróom-ñaar fukki soldaar ak benn ñu fetal leen ñu dee ak ña nga xam ne dañoo euh, sànku kenn gisu leen ak ña blessé ak na mu xewe Burkina Faso xewe ko Mali danoo war a jastandiku danoo war a seetaat sunu taxawaay ak sunu toogaay loolu nag ñi jiite réew mi ñoo ci war a jiitu ñoo ko war a dox euh, am nay jamono ma gisoon vraiment euh, li président doon waxee doon taxawee et cetera mais dafa mel ni ci jamono yi wax yii may wax wax yii lay tudd euh, dafa dem ba xaw a jaxase affaire bi man mm-hmm. lool lool loolu la may nirool néew ma lool la mel loolu la may nirool loolu nag bu fekkee moom la moom ma jàpp ne kon euh, affaire bi warees na cee mën a jàq yaakaar naa ne Sénégal fi mu toll parce que réew yooyu yëpp bu ci ne jaar nga ci régime militaire ay coup d'état ay soldats ay et cetera ay Sénégal jaaru ci kon war na noo mën a am nun expérience ak capacité pour li xew ci réew yooyu mën a mucc mën a mën a Sénégal mën cee mucc mm-hmm. waaye nag gisaguma dëgg dëgg dëgg dëgg ñu taxawe ko mm-hmm. loolu bokk na ci li ma xaw a tiital mm-hmm. waaye nag ñu am itam yaakaar parce que xëy na aussi am na daal euh, histoire am culture boo xam ne mu ngi ci réew mi boo xam ne mën nañu bu ñu ci sukkandikoo fexe ba génn ci. Mm-hmm. jërëjëf euh, jërëjëf mbokk yi mu nekkoon honorable député euh, Mamadou Diop Decroix jiite AJ ñu am mbégte euh, doon ko recevoir mbokk yi tey ci seen émission faram fàcce ak télévision Futurs Médias ñu leen di jox naan bu incha allah alarba ba di ñëw bu ci àlla ndey jërë ngeen jëf.